Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak bitim réew. xalif bi weer wu tedd wi ak gàmm gu tedd gi nga xam ne ñu ngi koy waajal euh, ñu gis taxawaay bi nga xam ne moom am na ko ci réew mi mais surtout ouverture d'esprit bi nga xamee ne mu ngi ci xalif bi parce que saa su ne suñuy waxtaan dañuy dugg ci géopolitique dugg ci ay mbir yu yaatu yoo xam ne euh, du yenn saay nga koy mën a waxtaan ak kilifa waaye moom ouverture d'esprit boobu niveau intellectuel boobu nga xam ne am na ko euh, moo tax saa su ne damay bëgg di ko jege di déglu lim may wax parce que lu mu la wax rek téere la euh, xel mu sell moom mu yor yàlla na ko yàlla gën a dooleel kattanal ko moom ba lépp li mu yóotu ci liggéeyal ko fii dëkk bu tedd bi suñu borom sottal ko kon ñëw bii ma ñëw ñëwu doom la ñëwu taalibe la gis nañu kër gi ni ñu ñu jàppee gis nga bi ñu yegsee sax nangu ñu ñu ñëw toog dañ ne dem leen añi soxna si ñu koy ziyaar di ko sant moom it ci téye boobu nga xam ne téye nañu ko te xam nañ ne lu mu ñu téye rek ni nga ñu téye moo ko raw te boo ko tegutoon ci yoon woowu xëy na du ko def kon ñu ngi lay delloo ziyaar di ñaan ci bés bu tedd bii ñu jëm yal na la suñu borom kattanal yal na la suñu boroom ubbil xéewal yal na suñu borom dooleel taalibe yi nga xam ne yow lañu yaakaar ñun ñi nga xam ne it ñu kenn yu dul yéen ñi fi taxawal mag ñu baax ñi ngeen naa ngeen aar ñu ngeen yiiruñ ba lépp lu doon seeni soxla taalibe yi mun cee taxaw parce que xam nañ ne amu leen lenn intérêt personnel lu ngeen di def rek pour communauté bi la lu ngeen di def rek pour réew mi la sëñ bi ñas ñuy sàkku ci yow it nga ñaanal réew mi ñaanal réew mi dal ñaanal réew mi jàmm ñaanal réew mi réussite parce que daluk réew mi réussite uk réew mi mooy ñun suñu réussite ñu ngi lay ziyaar bu baax a baax a baax a baax tànk yii daal laa àndoon ak euh, ñi ma àndal euh, madame le ministre Ndeye Khady Diop euh, ñoom Pape Sow ñoom Mamadou Guèye Bachir Seck ñu bokk ci biir la grande coalition gëm sa bopp man ak sama jëmm ju xeebu ji ma ne leen fa ma jëm de suma kër la kon su ma yegsee fii jaadu na ma ñëw weccanteeg yow yi kàddu dama ñëw sax fekk presse bi toog waaye jàppoon naa ne eh, taalibe bu ñëw seet si sëriñam eh, jaru tàllal micro <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf may wax bisimilah mairie na ci bés yu tedd yi nga xam ne Sénégal yëpp yàlla may na ko ko muy bésu teeru juddu yonent yàlla Muhammad Sénégal yëpp itam def nañ ci seen kémb kattan pour wax yàlla gërëm nañ la ci léegi ñu may yoonu Yàlla Muhammad Sénégal yëpp jàppale nañ ku ci nekk manifester nga ni nga munee ngir kontaan ci guddi yi di ñëw ñu ngi kontaan itam ndax guddi yi itam may nañu ñu gisante xam suñ compé compétence yi am ci suñu réew xam compétence yi ñu am ci ñu gis leen euh, ñu gis leen ay compétence yoo xam ne pare nañ pour seen nation pare nañ pour seen réew pare nañ pour seen euh, doom yi nga xam ne ñu ngi ñëw à l'avenir ñu jël li ñu am yëpp may leen ko mm-hmm. ci seen dund seen alal seen temps yëpp ñooy dañuy liggéeyal seen réew léegi léegi ak à l'avenir euh, yëpp yonent may nañu ñu tase compétence yooyu mm-hmm. mu jox ñu yaakaar bu baax a baax ne incha allah suñu Sénégal gi du sànku suñu Sénégal du sànku parce que am na ay doomam yoo xam ne pare nañ pour taxawu ko doomam yoo xam ne pare nañ pour joxe seen dund pour seen Sénégal gi bu mu sànku alhamdulilah rabbil alamina ci barke yoon ci Yàlla Muhammad may nañu ñu ngi gisee bu baax a baax ñu ngi ñu ngi weccewante ñu ngi wóoluwante surtout wóoluwante ah ñu ngi koy def ñu koy ngi bëggante ñu ngi bëgg doolee rek eh, ci daara lañ nekk yéen a ngi nekk ci beneen côté yëpp daara la waaye senegal lañ nekk Sénégal moom ñun ñëpp ku nekk danga nga bëgg senegal dooleeku ku nekk danga bëgg senegal jëm kanam mm-hmm. ku nekk da nga bëgg boo waxee senegal yi sa bopp mm-hmm. ah? ci ngeen jaay seen dund pour ñu am ko mm-hmm. bon mënuñ du dul ñaanal leen euh, di leen ñaan yàlla yàlla yàlla dëggalal leen seen yaakaar seen yaakaar mooy ñun mooy da ngeen a bëgg ku nekk am jàmm am jàmm sa kër am jàmm sa njaboot am jàmm sa réew ku nekk am loo xam ne dina la garanti sa nekk ci sa biir réew ak bakkan bu mag ak ak ak jikko yu kawe ah, loolu la ñuy bëgg loolu la ñuy ñaan yàlla yal yàlla dimbali leen ci eh, ñu àgg ci loolu ñun ñëpp ñu àgg ci senegal bi nga xam ne moom lañ bëgg a gis yal nañu ko yàlla woon ñàkkuñ ay borom xam-xam ñi ngi nii ñàkkuñu am volonté ñi ngi nii ñàkkuñu bëgg ñi ngi nii ñàkkuñu gént ñu ngi nii bon nag dafa des ñu ñëpp nag ñu ànd jàppalante nekk benn doole boo xam ne ñoo bokk fu ñu jëm ah yal na yàlla taxawale ci leen ko ñu ngi kontaan trop ci gis leen euh, ci bés yu mel nii voilà ñoo ko bokk ñun ñëpp la ah, ah, yal na yàlla fay la ci sa taxawaay yal na yàlla dimbale la yal na yàlla taxaw la bu baax a baax euh, fàttewuñu ñun tamit benn yoon ah macha allah. maa ngi fàttaliku keroog ñu ngi toog ma ne la nii nga foog ne dama leen a <laughs> <laughs> amut ah, alors man ka xam ne nit ku nit ku nit ku oyofal boppam a ngi nii ah voilà. moo ñu war ah, ah. moo ñu war. Ah, ñu amee ay kilifa yu mel ni yéen. mais <laughs> on est c'est un devoir. c'est un devoir. na leen fi yàlla bàyyi kattanal. jërëjëf amiin alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf Niass jërëjëf Niass. amiin amiin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 nationale ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg